asalaamualeykum mbokki taalibe yi sëriñ Abdul Fatah moom Cheikh Mahamadul Fadal moo ma jox ndigal ma jot wi kàddu yi mu jëme ko ci jullit yépp jëmale ko ci taalibe yépp ak képp ku mu agsi ci yow te nga soxla koo jël sëriñ bi mi ngi nuy nuyu ñun ñépp di ndokkeel ci bis bi nga xam ne moo nu fi dajale muy bisub jaamu yàlla di bésub jëfandikoo ndigalul sunu boroom lu ñu ca def yàlla na ko yàlla nangu sëriñ baa ngi ñu ndokkeel bu baax a baax di ñu ñaanal nii ñu ko fekkee ren ñu fekkee wat ko déwén gannaaw bu ñu sunu borom ci ñaan gi ñu ko ñaanoon daaw fekkee ko ren mu may na ko di ñaanal ñi nga xam ne ñëpp ñoo fi nekkoon ak ñun daaw te fekke wuñ ko ren yal na leen yàlla yërëm ñu wéree di it yal na leen yàlla yónnee ak wér di ñu dénk nag la sëñ bu mag bi daan dénkaane te xaaj Mahamadul Fadal daa ko jottali ci bis yu ni demee ñu ngi nuy dénk nu sax ci ak jub sëñ bu mag bi laaj na ñaar ñoo xam ne kenn ka ab sëtam a ngi fii toog ci jataay bi ne leen ci lu ngeen nekk kenn ca ñoom ne ko la nga ma digaloon ca laa nekk kenn ne ko ne ko maa ngi déglu ndigal rek mu ne leen man de foofu fépp nekkuma fa man dafa ma nekk mooy xëy ci farata gontu ci sunna dallu ci man mandub ak mustahab yéen ñaar ñii de bu ngeen demee fu ngeen dem na ngeen leen jotti na leen gannaaw bu ngeen ca jaaree jëfandikoo ko la ma leen dénk mooy yéen ñi sax leen ci ak jub ndax ku jub kenn du ko yàpp daan ne ndax mas ngeen a dégg gone yi wàcc leen ron bi ñu ne déedéet mu ne garab gone da ngeen dégg gone yi wàcc leen garab bi ba mu des wàcc leen ron bi daan ne ron moom la ko may gone yëbu ko sax sakkant mag sax yëbu ko sakkantuma mag dana coow ak fu mën a nekk rek ron lay doon yàlla nañu ko yàlla déggloo dal na leen su ngeen demee na ngeen jëfandikoo dëgg-dëgg imaan dëgg-dëgg lislaam dëgg-dëgg lixsaan dëgg-dëgg lislaam dëgg-dëgg imaan mooy sa pas-pas digganteeg sa boroom dëgër ba buñ ne la woon kaay ji ñu rey la ngir yàlla nga nangu na ko doomi Seydina Ibrahima ci nangu woon bàyyam ba nangu ko Seydina Ibrahima alayhim assalaam nee na ngeen fexe ba nekk ci lislaam lislaam nag mooy bul bàyyi dara lum santaane ci ak jaamu yàlla moo xam muy waajib wala mandub farata la walla sunna la na ngeen saxit ci lixsaan su ngeen demee lixsaan nag moo looy def rek yàlla tax di ko seereel yàlla daan ne ku sax ci imaan dana dox si digganteem ak ku kéefar danañ ca la musal nee na ku sax ci lislaam dana dox ba doo mën a def lu dul jaamu yàlla dong ngay man te yoon woowu mooy yoon wala yóbbu àjjana yàlla nañu ci yàlla boole na ngeen sax ci lixsaan it lixsaan nag mooy dox sa digganteeg bokkaale gu feeñ wala gu nëbb wala sax ak naafiq yooyu yëpp yàlla nañu ci yàlla musal bokkaale nag ba ci gën a tuuti te gën a fës nit ñi gën koo fonk ci jamono ji ñu toll fonk ko lool mooy njistal lu waay di def jëri ko ba ñëpp dégg ko ñëpp seen ko su ko ñëpp jëree soo ko jëree ba ñëpp dégg ko seen ko nag su boobaa bu fay jotee na seyte ñam ko doon wan waaye bu mu ko wan suñu borom ndax soxla wu ca dara lexsaan nekku ca na ngeen taqoo it ak ku ngeen dajeel ngeen laabiire ko la ngeen xam ci lu baax te yéeneen ci lu baax suba ngoon te bañ a tayal ci dara lu jëm ci lu baax ne boobu nag sëriñ bi mi ngi ko doon dund bu baax a baax a baax moom sëñ bu mag bi roye ko ca sangam bu tedd ba sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne ñam defaroon saa su nekk ñuy wane aw yoon wuy joxañ fa alquran jëm ak fa yonent bi sallallahu alayhi wa joxañ di sunnaam bu ma ko tënkee am na ku siiw ku ñuy wax Omar ibnul Xataab am na jamono yoo xam ne moom la jullit yépp jaayanteel dafa am bis muy julli ca jàkka ja taxaw foo xam ne ñëpp koy séen ñu tuddee ko xutba muy wax ak nit ñi ba yàgg mu ne leen yéen nit ñi sama soxna su tudd Umu Kalthum di doomi Seydina Ali ibn Abi Talib ngaalas yi ma yore soxnas buurub ruum moo ko ko yónnee la ko waral mooy sama soxna sii di Umu Kalthum daa yónnee woon soxnas buur boobee ay hadiya yu mu ko doon jox tàndarma fuddën ak lenn ci ay gët loolu amoon waaye ba ko soxna soxnas buurub ruum di delloo teraanga nag daf koo duyal ngaal soose ba mu fees dell ak wurus mu ngi nii may yor lu ngeen ci xam jàkka ji na rëg-rëg ñépp ne ko moo ko moom ndax moo joxe woon teraanga ñu delloo ko ko sidna ali mi nga xam ne mooy wajuru soxna Umu Kalsum moom i jóg taxaw ne ko am naa ci kàddu mu ne ko lu ci sa kàddu mu ne ko ngal soo su fees dell ak takkaay wurus ak ay bokkam na nga xam ne soxna su buurub Ruum joxu ko sa soxna jox ko soxna su Umar bi Xataab waaye soxna su amirul mu'minin la ko jox xalaat ba nag mooy jël ca lu tolloog la mu yónnee woon soxna su buuru bu li ci des lépp nga def ko ci baytu maalil muslimin Seydina Omar ibn Xattaab ne ah lii Ali ibn Abi wax day loolu laay def daan ne bu dul woon ak Ali ibn Abi Taalib Omar alko bu yàgg ndax sañ nga ko ak man nga ko lañ cay jàngate nag mooy euh, laabire googu Seydina Ali ibn Abi Talib bu ne woon doomam la Seydina Omar yore dana xo mën naa xool takkaay yooyee mu yor lu cay doon wàllam waaye da doon wax rek te yàlla tax xamal ko ne ko bu dul woon soxna si amirul muminin du am lu muy siq ak soxna si buuru bu Ruum ba mu di ko yónnee as ba mu fees dell ak takkaay kon boog lañ ciy dégg mooy ku nekk lam yor na xam la ko ko jox na xam ne ko ko jox ndax moom ñëpp ko bokk lam bokk ak ñëpp nag na ciy diisoog ñëpp lam moom yoonu kenn nekku si na ko fonk sañ na ca lu ne ba mu des yàq ko la yoonam nekkut mu maandati kàddu yooyu sëriñ bi nañ ko jot di ñaan suñu borom ci barkeb Cheikh Mamadou Fadal nee na mi nga xam ne mooy ab sëriñam te muy lu wér ñun ñëpp ñu bokkaat fi daje daaw euh, déwén daje woon nañ fi daaw yàlla nañ fi bokk daje déwén nawet bi nga xam ne moom la ñuy jublu siit yàlla na ko suñu borom def nawet bu barkeel bu woom ñi nga xam ne it leneen lañ dañ yëngu te bokkut ak dem ci ay tool ak dikk lépp suñu borom barkeel ko te def ci seen muur sëñ bu mag bi nag nee na woon barke fu dara nekkut mën na ko faa def fu dara nekk bariwut mën na koo baril fu dara bari bu ko fa fekkee mën na ko fa yàggal lool donte dara saxu fi kon sëriñ baa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di di déwénal ñëpp di ñaan kenn ku ci nekk bu demee lam ca dégg ka néew mu jottali ko ñëm jëm te ñaan suñu boroom mu de yóbbuwaat ñëpp ci jàmm ak salaam mi ngi dellu nag di santaat kilifa yi fi daje yëpp kenn ku ci nekk xam na aw turam ak santam waaye bu ci tuddee suñ Cheikh aw Balla moom Cheikh Mamadou Fadal mii dend ak moom nee na nag ku jot fi mbooleem ko ci war a jot fu waay jëm itam sëriñ baa ngi fàttali kóllëre gi dox seen diggante ñim ci seqaloon kóllëre ñim ci seq gutoon a kóllëre sëriñ bi nee na mi ngi koy fas tàmbalee ko tey tey balu xaq ñëpp tey baal xaq ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.